mbokk yi ginnaaw ba nga xam ne waxtaane nañ sëriñ bi kañ la gane jamono ak fan la gane jamono ak ñan ñooy ay waajuram ak euh, ban askan la bokk tey ñu ngi bëgg a waxtaane incha allah rabbi sëriñ bi akum njàngam ci zahir waaye bala ñu ciy dugg rek ginnaaw waxoon nañu sëriñ bi shérif la ci wàllu waajuram bu góor ñu leeral ñaari mbir benn bi mooy sëriñ bi shérif la ci wàllu waajuram bu jigéen ndax waajuram bu jigéen mi ngi tudd soxna Mariama Jaaratullah di doom ci Muhammad Buso Muhammad di doom ci Muhammad Hamad Buso Muhammad Hamad di doom ci Ali al Buusu bi ñooñu soo doon lim maam yi di limaam yi di te di tey dem da ngay téere ji ci Seydina Xasan mi nga xam ne mooy doomu Seydina Ali radiyallahu taala anhuma kon sëriñ bi shérif la ci wàllu waajuram bu jigéen loolu mooy tomb bu njëkk bi ñu bëggoon a leeral bu ñaareel bi mooy sëriñ bi worma ji ko yàlla jox dafa feeñ ba ci weer wi ko yàlla tànnal mu feeñ ci jamono muy weeru muharram di tam xarit te muharram mooy weer wu ñu wormaal kon loola day révélé ne kii feeñ jamono ci weer wi kat ku yelloo worma la ku ñu war a waggar la ku ñu war a respecté la benn shaacir wax na ko ne laylatal arbiaa fi l muharrami min baadi ishrina madat fal taalami nee sëriñ tuuba mi ngi feeñe jamono ci guddik àllarba ci weeru muharram muy tam ginnaaw ba weer wa amee ñaar fukki fan mbokk yi ñaar yooyu rek lañ ne woon nañ ko leeral soog a dugg ci suñu tem muy sëriñ bi am njàngam tey nag dañuy tënku rek incha allahu rabbi ci njàngum alquraanam yan sëriñ ñoo ko jàngal sëriñ bi ba mu demee ba toll ci ati dal jàng ci waa waajuram woowu di Mamor Anta Sali da ko jébbal nijaayam nijaayam bu tudd Muhammad ibnu Muhammad Buso kookoo ko njëkk jàngal Muhammad ibnu Muhammad Buso boobu nag moo soxna jaara ñoo bokk ndey ak baay mu daldi koy dalal jàng muy wéy di jàng ci moom di jàng ci moom ba sori lu néew moom nijaay jooju daal di koy jébbal janeen nijaayam maanaam kon kii sëriñ bu ñaareel bi du nijaayu sëriñ bi waaye nijaayi nijaayam la nijaay la ci Muhammad ibnu Muhammad Buso bii bokk ak soxna jaara ndey ak baay kon loola danga nga ciy dégg ne euh, nijaay la itam ci soxna jaara sëriñ boobu mooy kan ñu ngi koy wax tafsir Mbàkke Ndumbe di doom ci Muhammad soxna Buso Muhammad soxna Buso di doom ci Muhammadul Kabir tafsir Mbàkke Ndumbe moomu moo soxna Aïchatu Mbàkke mi jur soxna jaara ñoo bokk ndey ak baay ngeen gën koo miin ci soxna asto waalo Mbàkke kooku itam mooy sëriñum ñaareel bu ko jàngal jamono yooyu ñu ngi daan nekk diggante Mbàkke ak Jolof maanaam di nawetaani ak di nooraani di ko jàngal di ko jàngal ba li leen teqale daal mooy bi ñu demee ba tafsir Mbàkke Ndumbe génn àdduna dellu ci ngërëmul boroomam booba nag fekk na sëriñ bi mi ngi bëgg a wattu alquran am ñu ne itam mu ngi tolloon ci la tajidanna loolu itam am na ñu ko wax waaye lu mën a xew daal bi tafsir mbàkke ndumbe génnee àdduna ci la sëriñ tuubaa delluwaat ca waajuram wu tedd woowu di Mamor Anta Sali Mamor Anta Sali nag moo mottali am njàngam di ko jàngal ba alquraanam yegg mu tàggat ko ci tajwiid muy nan la ñu rafetale alquran di ko jàng-njàng moo xam ne day respecter règle yeeg norme yi jàngal ko ilmul qiraat as-sab'a muy juróom-ñaari xeeti njàngin yu wuute yi jàngal na ko ko ba maîtriser ko jamono jooju nag euh, Mamor Anta Sali mi ngi doon nekk Saalum ndax la ko jëlee Mbàkke Bawol mu dem Saalum mooy euh, da doon ànd ak Maba Jaxu Ba ca jihaad jooju muy guerre sainte boobu mu doon mëne contre noonu lislaam yi ngir lekk lislaam mën a taxaw kon mbokk yi ñetti sëriñ yaangoog yi nga xam ne ñoo méngoo woon njàngum alquraanu sëriñ bi muy al cheikh bu so nekk al cheikh Mouhamad euh, ibnu bu Bousso nekk nijaayam ak euh, tafsir Mbàkke Ndumbe nekk maam ci moom ak euh, Maam Mor Sali kon ñu ngi leen di woo bu baax ci ngeen bi ñëw di abonné wu ci chaîne YouTube bii di yaatal xeltu yin di seetaan suñuy vidéo di commenter di aimer di leen tàggu fii di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala